ñun ay ko. mariage u Aïcha Rasoul yéen ñi bàyyam yëgoo leen. parce que Mohamed yëguñu ko xam nga li ma lay wax a ngi nii am na loo xam ne aussi parfois day day xew bon journaliste bi di wax wala keneen ki di wax te du xam ne xew ñun naka la coon di génnee àdduna. Mm. Euh, moom yi doomam taawam ak ki ne génn àdduna. Mm-hmm. Euh, ki ne jur. génn àdduna mhm. ñi mayee Aïcha caat bi te mhm. kenn teewu fa ñu bari ñaawlu woon nañ ko dafa ñaaw amul ñaawlu melnum Assane Ndiaye moo fa nekkoon waaw te Assane moom sax warul woon nangu moom kase mu dem di toog foofu war la laaj lan moo tax ñeneen ñi ñëwuñu si kenn woowu leen salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñoo ko déggandoo Ousmane Seck Ousmane Seck yow naa féq nga Ousmane Seck naa fekk bu mag nga yow mii di wax xam nga lan nga war a wax ah xam nga lan kan nga war a waxal li ngay wax nii xam nga lan moo gën a importance waroon ngaa dem wax ak ma na sekk ne ko mu dem jaale ji yaa ngi dégg ah ki ne Juuf parce que ba Baba Thione génnee àdduna ma na sekk ñëw fa jaale ba ki ne deewee gisuñu ko gisuñu kenn yaa ngi dégg njabootu Papa Thione ñi leen taxawu xam nañu ko ba Thione génnee àdduna Assane Ndiaye la ak Ismaïla Lo ñooñu wàlli fonku na leen yaa ngi dégg njabootu wàlli fonku na leen njabootu coon fonku na leen njabootu jaaga njabootu jaaga fonku li ngay def nii du ca cër toog ci télé bi di wax naan ay est-ce que jël nga say responsabilité ndax yaa ngi nemmeeku waale yaa ngi nemmeeku famille bi ndax yaa ngi xool ci loolu nekk déedéet da ngeen di def nii rek mais ñi bëgg waali ak ñi bëgg njabootu Papa Thione ñun xam nañ leen Assane Ndiaye ñoo ñoo fonk njabootu Papa Thione bëgg njabootu Papa Thione saa yu waale amee naqar da nga leen di gis soo amee mbégte da nga leen di gis liy waale di dund famille bi dafa metti ñun dañuy gis de kenn duñu wax xam na lépp famille bi xam na lépp Wally sekk nit ku baax la mënu leen koo yàq yaayam da koo gërëm papaam gërëm ko mu téye musique sénégalais doon centre du peuple nag tekki ci nag te gën a am njariñ ci famille bi loolu ku mu metti dangay ngay dee wala nga xaru wala nga jéem a am doom ju mel ne moom waali mënu leen ci moom dara te lii ngay def nii du sa cër ñun xam na lépp jërëjëf Ismaïla Lo jërëjëf Assane Ndiaye gis nañ ni ngeen di taxawoo waali ak njabootu papa Thione Diaga jaaraama gàcce gaalaama wasalaam. yëguñu ko. mariage Aïcha Rasoul yéen bàyyam yëgoo leen. xam nga li ma lay wax a ngi nii am na loo xam ne aussi parfois day day xew bon journaliste bi di wax walla kenn ki di wax te du xam ne xew ñun naka la coon di génnee àdduna hmm. euh, moom yi doomam taawam ak ki ne génn àdduna hmm. euh, ki na jëf génn àdduna hmm. ñuy mayee Aïcha caat bi te kenn fa ñu bari ñaawlu woon nañ ko dafa ñaaw amul ñaawlu melnum Assane Ndiaye. moo fa nekkoon waaw. te Assane Ndiaye moom sax warul nangu moom kese mu dem di toog foofu war la laaj lan moo tax ñeneen ñëwuñu si. kenn woowu leen. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñoo ko déggandoo Ousmane Seck Ousmane sekk yow naa fekk nga Ousmane Seck naa fekk bu mag nga yow mii di wax xam nga lan nga war a wax ah xam nga lan kan nga war a waxal li ngay wax nii xam nga lan moo gën a importance. waroon ngaa dem wax ak ma penna sekk ne ko mu dem jaale ji yaa ngi dégg ah Kiné Juuf parce que ba Baba Thione génnee àdduna ma penna sekk ñëw fa jaale ba Kiné deewee gisuñu ko gisuñu kenn yaa ngi dégg njabootu Papa Thione taxawu xam nañu ko ba Thione génnee àdduna Assane Ndiaye la ak Ismaïla Lo ñooñu wàlli fonku na leen yaa ngi dégg njabootu waali fonk na leen njabootu coon fonk na leen njabootu jaaga njabootu jaaga fonk na leen yow li ngay def nii du ca cër toog ci télé bi di wax naan ay est-ce que jël nga say responsabilité ndax yaa ngi nemmeeku waali yaa ngi nemmeeku famille bi ndax yaa ngi xool ci loolu nekk déedéet da ngeen def nii rek mais ñi bëgg waali ak ñi bëgg njabootu papa coon ñun xam na leen Ismaïla Lo ak Assane Ndiaye ñoo ñoo fonk njabootu papa coon bëgg njabootu papa coon saa yu waale amee naqar dag leen di gis su amee mbégte dag leen di gis liy waale di dund famille bi dafa metti ñu dañuy gis de kenn duñu wax xam na lépp famille bi xam na lépp waale sekk nit ku baax la mënu leen koo yàq yaayam da koo gërëm papaam gërëm ko mu téye musique sénégalais doon centre du peuple nag tekki ci nag te gën a am njariñ ci famille bi loolu ku mu metti da ngay dee wala nga xaru wala nga jéem a am doom ju mel ne moom waali mënu leen ci moom dara te lii ngay def nii du sa cër ñun xam na lépp jërëjëf Ismaïla Lo jërëjëf Assane Ndiaye gis nañ ni ngeen di taxawoo waali ak njabootu papa coono jaaga jaaraama gàcce gaalaama wasalaam